ay cër ami internet seen média contentement ak mbégte laay am saa su may janoog yéen ah ba tax na gëjoon nañu daje waaye nag maa ngi nii ah di leen baalaak bu baax a baax waaye tamit di leen baaluwaat ci li nga xam ne mooy tabaski bi tey nag gis ngeen ma boo leen mu xoolee nii xam ni maa ngi fii ci Petersen parce hmm, que yéen doxantu dem ba Sacré-Cœur wër gox yeeg goxaat yi waxtaan ak askan bi lii nga xam ni moom la président yëkkati démb kàddu yoo ci discours am ne du bokk du présenté wu donc fas yéene si waxtaan ak askan bi lépp benn la ñu jox ñu si seen xalaat ayca Bamos tey nag du sama caméraman de caméra woman la Bamos ñu dem bi salaamaaleykum maaleykum salaam noo def ba yaa ngi si jàmm maa ngi bu baax waaw démb président nag def benn discours ah mu doon li nga xam ni sénégalais yi ñu ngi ko doon xaar booba tey mhm. tey yow ana lan moo si sa jàngat waaw sama jàngat mooy bon ça maintient le mu nekk si calme am la bon ñëpp di ko doon xaar nag bon, je ne m'attendais pas à autre chose que ça, pour moi, ma part. ça a été une bonne décision et sage décision. on l'encourage. alors ñu ñaanal mu même Afrique ça parce que bon il a les capacités donc mu sénégalais yi nga dañ non du troisième mandat donc ce biir kàddu ñu ngi dégg ni yaangi ngi naan bon xamone nga ni dina ko def dina ko wax wa ma lo ma ko lo mo su nek sama xalaat quoi xamone na ni bo xeyna day bàyyi gars wax ni rek mais au fond euh, au final day du du du du ko nangu quoi du def euh, troisième mandat bi bon ça a été ça euh, été on apprécie beaucoup alors c'est ça quoi question d'accord c'est ça analyse hein. donc à quelques mois des élections des prochaines élections incha allah yow tey ana kan nga ñu mën a wax ah gëm nga ni moom moo war a mën a wuutu kii nga xam ni mooy président Macky Sall si réew mi. waaw waaw xanaa si kii rek Sonko. Uh-huh. Sonko daal yaakaar ni war na ko mën a wuutu fekkee liñ koy teg tegg nañ ko. waaw loolu am naa si yaakaar bëgg a ñaan mu teg ko liñ ko teg incha ñëpp mën bokk daal na bàyyi ñëpp bokk ku ku daal ñu xam ne mais Sonko daal lañ yéene ñu yéene mu dem mel na ni dégg nañ ay kàddoom Sonko daal la am yéene mu jël réew mi donc ñu ngi lay jaajëfal. jaajëf maa ngi leen di jox yéen waa. Sen Média Sen Média ok jërëjëf jërëjëf. ayca grand bi ñu ngi lay ziar. waaw maa lay ziar. noo def ba yaa ci jàmm. waaye sant yàlla bu baax a baax a baax. ayca comme ah, nga joxe li nga xam ni mooy sa xalaat ci discours président bi démb. waaw discours président bi de man wax dëgg yàlla euh, bett na ma bettul ndax wax dëgg yàlla man ci ñi waxoon ne président day renoncé wu loolu laa mu tëgg mu quoi waaw xëy na comme ni mu ko waxee woon rek. Euh, di di nga toll moment boo xam ne xëy na comme li mu waxoon euh, soo mun nga teel wax comme ci coalition nga nekk mun nga teel a wax disperser sa a déglu après gëm ne bu ma jàppee ci li mu waxoon waxu góor parce que am na loo xam ne ku ko xes wax rek kaddu da lay tënk mhm. man yaakaar ne président bokkul ci genre man man dama mos a gëm ne dina renoncé da doon da doon xaar le moment venu rek mu mun a wax. tey mu mel na ni àgg nañ ci le moment venu donc yow tey sa gis-gis tey kan nga xam ni kan nga xalaat ni moom lañ war a mën a wuti ci dëkk bi. waaw dëkk bi moom ñu ngi ko war a mën a wuti bëri na wax ndax Sénégal moom. ku xam Sénégal xam ne Sénégal moom wax dëgg yàlla moom bari na ay intellectuel ah, ah, ah. am na ay intellectuel yàq yoo xam ne tey ñu ngi euh, ñoo xam ne mm-hmm. tey kenn xamu leen kon ñu war a ñutu matal am na seen tur kon ma jàpp ne rek euh, affaire yi war na mun a am daal surprise kenn ñëw koo xam ne kenn fawu ko woon mm-hmm. ci loolu laa waaw nag wax dëgg yàlla ku mel ni Khalifa Ababacar Sall aussi mm-hmm. ah nit ah, ku yaru la ku teey la. aussi comme apaisement la. Ah, ba nga xam ne ku ko mun di jël daal muy rek man am naa bi l'essentiel li la Sénégal di xaaree rek na ko def daal loolu daal moo ci am solo. te yaakaar ngeen si ñoom képp ku fi mën a na def lu Macky deful woon. waaw Macky Sall nag waaw loolu moom du ma ne ku ñëw loolu du ñu def mais nag wax dëgg yàlla bu fekkee dañuy wax dëgg rek yàlla tax moom président moom. kenn ku ne xam na ah, am am na bilan waaw bilan que boo génnee fii rek nga dem xam ne président bi na li posé woon rek mooy xëy bilan man wax dëgg yàlla moom jàpp ma ne war nañ ko ci mën a dugg a mais ñu ngi lay jaajëfal. waaw ok merci waay jërëjëf jërëjëf. ayca toujours ah mu mel na ni ñi ngi ci li nga xam ni mooy discours président bi mu amal démb ah ñu fas yéene ne naa leen ko ah. seet si ñi nga xam ne sénégalais laaj leen seen xalaat salaamaaleykum mbokk maa ngi lay nuyu noo def mu président de la république na ah wax ko tey ana lan moo si sa xalaat kàddu yi tam mooy loolu ñu ngi rafetlu kàddu yi rafetlu trop d'après président bi wax loolu quoi n'est-ce pas ah, ñu dëkk quoi ah, di ko ñaanal jàmm dëgg fa mag jàmbaar lekk lañ koy si def suñu wax mais boo nga fii nii ñun fii la ñuy liggéey DRTV ak yenn projet yu ñu yu bëri macha allah tey ci kàddu lool yooyu noonu ñii ne waroon na toog ñii ne noo dëgg la li mu def moo baax yow tey nga gis ni carrément ngay rafetlu loolu décision boobu noonu mu def ak li nga fi jot a wax nii est ce que tamit waruñu ko woon bàyyi mu yeggale gën a toogaat gën a defaat yeneen ak yeneen est ce que tamit tey ñun lu ñuy lu ñu yaakaar ni keneen su ñëwee est ce que war war na mën a def li nga xam ne Macky defu ko. waaw mais d'une part nga grand affaire du match bi Sonko ñun suñu biir ñoo yéenantewul Sénégalais ñun suñu biir dañoo yéenantewul quoi loolu dafa ñu ko xoolaat kenn bu ñëwee tamit ñuy doxee nii dañuy sonn mag yi liggéey na am jàmbaar la mais dem comme que ñoo foloon population bi ñu waaw yoon la mu dem quoi lu mu def mooy yoon waaw mu def mooy yoon yow si sa gis-gis actuellement mbër yi nga gis yëpp ñu ngemb taxaw kan moo la si doy wala kan nga yaakaar ni su ñëwee ah dina def li nga xam ni Macky defu ko woon wala lu gën a rafet. non instant bi moom moom d'après moom lu ma gisagu Sonko wax xam nga ku nekk livre nga faral ku la neex Sonko d'après lu mu ñu woon tamit doy nañ d'une mais tamit nañ def attention quoi te yàlla moo koy fale waaw nañ def naan gën a xool ki ñu koy jox Macky jàmbaar la de mais xam nga Sénégal ñun lu ñu daloon si laaj nañ mel mu dalaat. walaay dañu won na dem na dem mu dem gëna pire ñaanu mako yalla yàlla ñu ay sénégalais mais dañu def naa Macky liggéey na wax dëgg xol li ñu xam ne liggéey na jambar la quoi mais tamit gaay ñoo doyal mu gaay mu buñ moom dañoy seen carte ñoy falaate ñoon la mu def noonu d' accord à quelques mois des élections yow ana ban message si jéxal ngay lancer ñi nga xam ne mooy nation bi population sénégalaise bi. waaw di wax gars yi ku ne yaa am sa carte yaa am sa carte yaa xool bu la ne nga bëre ko non à la violence quoi. ñu dellu si jàmm ci dëkk Bamba la fii moom ah ñu wax ne si Bamba la dara ngir dañoo doon ay mbir wala ñu fàttali leen dëkk bi amay réalité bi ñuy dox quoi su ñu doon président da nga koy doxee man tamit di ko xam ne di ko félicité nga ñaanal tamit lu mu wax yàlla bu dara jële tamit mu am lu xam lu gën si kanamam quoi ñu ngi lay jaajëfal kàddu yi ah, rafet nañ ok grand merci waay jaajëf merci beaucoup ayca ba tey ah nee si situation dëkk bi rek comme toujours ah salaamaaleykum grand maa ngi lay nuyu waaw ça va ñu ngi lay fay noo def baa yaa si jàmm sant yàlla alhamdulilah ñu ñëpp seetaan nañ ki nga xam ne mooy président de tous les sénégalais ci ah, suñu njiitu réew ci discours bi nga xam ni moom la tenir ne carrément que du du amal wala du bokk si élection yi nga xam ne mooy am incha allah 2024 lan moo ci sa xalaat sa gis

moom mi bokkoon ci xeex bi tey mu ñëw wax leneen bu waxoon leneen aussi leneen tamit mooy amaat ci dëkk bi mais comme am na maturité boo xam ne revenu na ci position boo xam ne moom la doon xeex bon dañ ko ci sànni rek xam ne Sénégal noonu la baaxoo quoi parce que dëkk bi dafa yàgg ci ay tension te fi ne nii dañ soxla leneen lu dul problème quoi. est-ce que tamit man. gisoo ni nii dañ ko waroon may tuuti batma tamit ñu continuer yeneen infrastructure parce que tamit ku waxal yàlla xam ni am na yenn lu nga xam ni def na ko voilà def na ko fi indi na ko fi quoi waaw non batma boobu loolu du loi la ñu war a respecté parce que constitution bi moom moo ko bind lu wax ne nul ne peut faire deux mandats consécutifs waxuñu nag mandat mais mandat la wax loolu nag question ne moom parce que constitution bi nag ñu ko war a respecté en tant président gardien de la constitution boo ko respecté moo tax li mu ci wax tamit am nañ ci contentement mais lu lu normal la quoi la waaw loolu lañ doon xaar ay may bat maag yooyu noonu ak keneen ku fi mën di nekk moom lu ñuy wax la il faut la respecté loolu kese la quoi la te instant yi mbër yi daanaka ngemb nañ taxaw nañ yow sa gis-gis ah ana ana ana ban mbër nga gis ni moom moo war a toog fee ca ca ca 2024 wutu kii nga xam ne mooy Macky Sall waaw mbër yi moom waaw bëri nañ ñu ci bëri nag présenté wuñ ñenn ñi lañ gis ku mel ni Ousmane Sonko te Ousmane Sonko moom boo xoolee bi yëpp moom la ñu am ci moom nekk loo xam ne depuis 2016 ba léegi nit ñaa ngi koy suivre ci côté waxam muy am constance am jeunesse am ci moom yaakaar bu baax waaw selon man nag côté boobu nag moom la ñu am ci moom yaakaar bay gis leneen mais quel que soit Alpha muy Ousmane Sonko muy keneen ak keneen du ñoom jeunesse bi ñoo jël. seen avenir en main képp ku fi toog boo doxalul yoon li koy dund ngay dund waaw bi moom dootuñu arrière ci côté boobu quoi loolu képp kuy waajal élection bay boo nga xam bi dootuñu arrière ci loolu mu doon kàddu yi nga xam ne moom moo ñi moom la yëkkati tey ana ban message ngay lancer nation bi population sénégalaise bi. waaw ñu gën a éveillé rek xam ne tey jii nii dëkk yu bëri avancé nañ te Sénégal. mën nañu wax ne avancé nañ ci ay infrastructure mais loolu du dëkk Sénégal dafa am yu bëri yoo xam ne dafa yàq léegi nag nation xam seen njëriñ ci lu bu bëri ci politicien yi ci ñu topp koo xam ne tey jii nii bëgg na seen réew yërëm na askan parce que askan bi boo gisee xam nga ne sonn xale yaa ngi feeg berteer yaa ngi feeg yëpp a ngi fi waaye biir yi dara newu fi boo si dara newu nag aussi il faut ñoom ñu jël seen destin en main ñoom lay des bi xam ni ñuy sànnil seen carte parce que tey jii nii am na ñu bari ñu ngi fi bëgg a nekk président mais boo xoolee ki ñu fi bëgg a sax moo leen fi xaw a tane parce que déjà ñoom seen i déclaration rek ak li ñu jot a gis rek ils sont nag jeunesse bi ñoo war a éveiller ci yooyu xam ci ki nga xam ne tey Sénégal la ko ñor ak ki nga xam ne boppam ma ñor ñu dem ci ki Sénégal ñor Sénégal avancé parce que Sénégal du dëkk bu la ko développer xam nga te dëkkub jàmm la jàmm fi am nit ñi lu ñu bëgg mooy liggéey tedd xam nga justice bu normal nit ñi tegu ci yoon loolu kese mooy Sénégal loolu boo amee rek dëkk bi avancé mais seen média mi ngi lay jaajëfal waaw maa leen jaajëfal ay ca kontaan nañ merci beaucoup yaa ngi si jàmm sant ak mu donc mu mel na ni toujours ah président tenir na démb benn discours wax ak ñi nga xam ne mooy askanam ci li nga xam ne moo lënd moon ci boppu askan wi muy que du présenté ci li nga xam ne mooy troisième candidature wala troisième mandat ca prochaine élection 2024 yow ana ban gis-gis ban jàngat nga ci def. waaye di gis-gis ñu ci am rek mooy gis-gis bu rafet di ko saluer di ko rafet rafetlu tam eh, ndax eh, décision la boo xamante ne eh, vraiment indi na dal ak apaisement si réew mi surtout climat politique bi gën naa dal quoi to ku ne xam na ne élection moom violence baaxul surtout si jeunesse bi quoi li mu def ni ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax ñaan suñu borom. bu jeexalee mandat bi yàlla may ko yeneen kii yu gën a baax wala mu nekk yeneen liggéey yoo xamante ne ñoom comme ñi ko yeneen njiit yi amee woon njiiti réew yi fi nekkoon dem boo bàyyi présidence ñu namee la si yeneen liggéey ngeen matal mission bi quoi parce que àdduna lekk mission la dangay ngay jeexal ci mission bi commencé si beneen mission kon ñu ngi koy ñaanal Eh, di kontaan si lu mu def nii vraiment kontaan nañ ci bu baax a baax a baax décision la boo xamante ne rafet na bu baax to macha allah na fi def na fi tam bilan boo xamante ne kenn mënu ko eh, contesté quoi mhm. kon ñu ngi koy ñaanal suñu borom tam defal ko vraiment mu noppalu noppalu bu baax to suñu borom jox ko yeneen liggéey yu am solo mhm. yeneen liggéey yo xamante ne na ko def au niveau du continent wala ci àdduna bi yëpp daal mhm. vraiment kontaan nañ ci mom daal nañ ñu ngi koy ñaanal bu ñu ngi koy ñaanal président Sall waaw. d'accord naka démb ñu bëri yeeweeku mbër yu bëri commencé fëgg seen i dënn mbëru politique yi ku si nekk di bàkku yow tey si ñoom ñëpp ana kan nga gis ni war na wutu ki nga xam ni mooy président de la république. waaw xam nga tam euh, bu dee ci loolu moom euh, duñ ci mën a prononcer parce que ba léegi nii waxaguñu kan ak kan mooy nekk candidat. dèjà fu mu ne nii conseil bi conseil conseil joxaguñ kan moo war a nekk candidat ak kan moo warta nekk candidat dèjà xamuñu kuy doon candidat quoi mais ñun am nañ ñoo xamante ne Sénégal bëri nañu ko mën a jiite 17 millions million ñu. ñun ñaan ñu naan daal suñu borom teg nga xamante ne moo gën ci réew mi daal. Mm-hmm. mais pour le moment comme conseil constitutionnel waxagul kan moo mën a nekk candidat ak kan moo mënul nekk candidat mm-hmm. amaguñu duñ ci prononcé wu daal. Mm-hmm. ak mais daal képp ku ci mën a nekk rek yal na nekk ku gën ci réew mi daal. a waa Sénégalais moom. ku nekk daal na nekk Sénégal bu gën ci réew mi. Mm-hmm. waaw loolu daal moom loolu la ñaan suñu borom. Mm-hmm. waaw macha allah kontaan nañ trop. ci jërëjëf ana ban message ban message ngay lancé population pour terminer. ah message bi may daal mooy message de paix message d' apaisement message jàmm bañ a wax wax du ñaaw. Mm-hmm. ñun ñëpp ñu def ko ci démocratie def ko ci. discipline daal waaw parce que tam xale tam yar mooy lépp. xale mooy yar mooy lépp quoi. nit dañ ne bu fekkente ni seen ndaw yaru nañu mhm. mun na am avenir bu baax quoi mhm, mhm. c'est la discipline qui compte seulement ah, seen média mi ngi leen di jaajëfal ñu ngi jaajëfal seen média ji kontaan seen di leen ñaanal tam yokku ci rek ci kanamam ay ci allahuma amin jaa ngeen jëf jaajëf waay allez merci naka marché bi ak njaay ah gis nga de ah. marché baa ngi nii ñu ngi ñu ngi faraatu nànk daal ñu ngi sant bu baax. ah kon sant yàlla ñu ngi waaw démb président. yëkkati benn discours bi nga xam ni ubbi na ñenn ñi si bopp sénégalais yi doon ko xaar muy li nga xam ni mooy troisième candidature am mm-hmm. mu prononcé wu ne du bokk ci élection 2024 yi yow tey en tant que citoyen ana lan moo si sa gis-gis ah waaw loolu de moom wax dëgg ba ma ko ba ma ko dégloo moom alhamdulilah parce que ñu man de loolu rek laa doon xaar ci moom ma ñan mais man de loolu rek laa doon parce que damay fàttaliku loolu moo ñu daloon ci Ablaye Wade dafa waxoon ne day prononcé kii day prononcé ci troisième mandat bi moo fi indiwoon dégâts matériel yi ak yàq yàq ñoom genre mais moom nag wax dëgg bu ñëwee nag ne man maay ki nga xam ne maay organiser élection yi te du ma bokk loolu tamit nag dañ koy rafetlu bu baax a baax dañ koy rafetlu mais ñaawteef yi mu fi jot a yi mu fi jot a def nag dañ koy ñaawlu de. am na yoo xam ne nag moom moo ko fi def ba noppi naan du ma du ma kii. comme yan noonu comme yan. ah moom ma fi def comme lu muy def Sonko nii. am na ni lii rafetul di ba di barricade ay këram ak. Mm-hmm. loolu lépp mu mu koy def. Mm-hmm. loolu lépp loolu lépp kii loolu lépp rafetul. Mm-hmm. loolu lépp da ko war di bàyyi. muy xoqatal opposant yi muy xoqatal loolu lépp da ko war di bàyyi. Macky wax dëgg waaw lu mu fi def nii benn moom moom moom daal laa xam ne moom moo ko fi mas a def nee ma doo bokk ci ci ci ci élection yi mais Macky nag dafa bëri ay pexe. Ah. man nay wax loolu ba pare jaaree faneen. ah loqati ñu. Macky daal moom wax dëgg laa. comme li mu wax ni daal loolu daal alhamdulilah ndax dëkk bi kii mën a nekk si jàmm nit ñi mën a nekk kii nekk seen liggéey ñi war a jaay dem jaay ñi war a jàngi dem jàngi te fi mu ne ni boo xoolee système bi système bi yëpp a jaay bi doxatul jàngi même chose jàngi bi fi mu ne nii mooy loolu dara doxatul moom daal fi mu ne nii alhamdulilah gannaaw gannaaw gannaaw wax na ne day teg troisième mandat ci suuf bi nga xam ne moom moo doon mandat depuis trois ans quatre ans ba léegi moom la Sénégal di waxtaanee ndax Macky day bokk wala du alhamdulilah comme que nee du bokk kon alhamdulilah comme ñi nga xam ne ñoom ñoom ñoo doon jooy nañ jooy deret sax ñoo xam ñun dëkk bi ñun jàmm lañ bëgg ay waxi troisième mandat nañ ko teg ci suuf nañ ñu mën a liggéey ñu dellu si waar wa waaw te nu bàyyi Sonko nag Sonko su man man Sonko xanaa xam ne ñun Sonko rek la ñuy topp ñun topp toppuñ keneen uh-huh. troisième mandat bi su ko doon jéem a def boppam lay sonal rek uh-huh. mais lii day da koy noppal noppalaale ñu nga xam ne ñun tamit duñu mën a xeex xam nga ñun tamit saa am na loo xam ne bu ko waxee tamit ñun day dal suñu xel ay troisième mandat yi moom jàpp nañ si jàpp rek bu amul benn président bu bu mën a ñëw ci Sénégal gi di wax ay waxi troisième mandat waaw moom daal nañ liggéey rek nañ liggéey te bàyyi coole kon daal jàpp nga ni euh, yow li nga gis mooy Sonko moo war a doxal réew mi ca 2024 incha allah suñ la déggee bu baax waaw parce que moom daal moom moo ñëw indi ñu discours boo xamante ni wax dëgg neex yàlla discours bu ba ko sénégalais yu bëri dégloo sénégalais bu ñu nekkoon 100 pour cent 90 pour cent yëpp mu ne ni boo xoolee Sonko lañ ànd ak ngir discours bu mu leen indil. Mhm. parce que man de si lu ma yaakaar. Mhm. parce que ñun yaakaar dong lañ am. Mhm. léegi moom mooy ñëw nag moo xam dañuy trahir wala moo xam dañuy kii mais ñun nag yaakaar lañ am si moom. wax dëgg na yàlla man de wóolu naa ko te te te te wax dëgg na yàlla te te. te te yëfu dong lay def daal du fen du sàcc boo ko tax ñi nga xam ne politiciens yi nga xam ne dañuy fen di sàcc rek wax dëgg loolu moom ñaawlu naa ko trop moom daal am nañ ci moom yaakaar ne bu ñëwee fii ci ci euh, euh, euh, Sénégal gii. 2024 incha allahu rabbi affaire yi dina changé. njaay mi changé. jàngeen bi changé système bi daal système politique bi daal ñu ñu jëlee ko fi ñun daal ñun daal ñun loolu la ñuy xaar incha allah waaw. pour jeexal ana ban message ngay lancé population bi. waaw moom daal moom daal fi mu ne na dëkk bi dal daal ñun ñëpp ñu mën a liggéey. na dëkk bi dal ñu jàngi jàngi ñuy liggéey dem liggéey. ñu wàññi sàcc gi yooyu noonu affaire yi yooyu noonu affaire yi dafa war a jeex ñëpp war nekk ci ci ku ne nit boo nekku ci dara ah, da ngay foo sa xalaat sa xel mi sàcc rek lay xalaat faaw ñu liggéey quoi faaw ñu liggéey loolu la affaire bi loolu la quoi. mais seen média mi ngi kontaan ci yéen. waaw waaw ñoo leen gën a kontaan ñoo leen gën a kontaan. ayca jaa ngeen jëf. waaw jaajëf jaajëf Moreau ñoo gën a kontaan waaw. ayca salaamaaleykum ku baax. Eh, waaleykum salaam. noo def ba yaa ngi ci jàmm. waaw sant bu baax alhamdulilah. ayca tey seen media moo doxoon si woon ñëw laaj leen li nga xam ne mooy seen xalaat ci li nga xam ni président àdduna si démb muy troisième candidature bi nga xam ni nee na du ko def du bokk si 2024. ana lan mo ci sa gis-gis yow waaw discours bi déglu leen ko buñ ko dégloon nag euh, dégg kàddu président Macky Sall dañ koy rafetlu quoi de Sénégal war dëgg yàlla war nañuy weesu si wax ay troisième mandat ay problème candidat war loolu Afrique da ko war a weesu quoi yow naka ngay bindee bindee article na nil ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs nga ñëw ba deuxième mandat jeex nga ne da ngay da ngay jéem a pousser troisième mandat loolu dafa war a jeex Afrique loolu dafa war a jeex kaddu yi nag rafet lu nekk dégg nañ ne mu ne du dem du dem du dem troisième mandat loolu rafet lu neen kon ndax kaddu yi am solo ndax troisième mandat day taxal réew ndaxte deux mandats soo ko war doo ko defee da nga war a jógee ko fi dem dem doxi sa yeneen yitte bàyyi yeneen Sénégal yi ñu mën a am seen xam-xam jiite rafet lu neen ko vraiment quoi mais nag su demee est ce que ñun war nañoo est ce que dinañu mën a am keneen ku mel ni moom wala keneen ki nga xam ni dina fi def li mu def non bien sûr yaa bëgg di seen yoo xam ne am na xam-xam am am na idée mais duñ leen fal yaa ngi gis ay suñu suñu suñuy direction ñu ko jiite ay mag yoo xam ne ne plus de 60 di jiite ay direction yaa am na seen yoo xam ne am nañ xam mais duñ leen may chance boobu mm-hmm. lu tax dañ war a may chance seen yi essence xam na àdduna nu muy doxee mm-hmm. xam nga dañ leen war a may chance ñu jox leen ay direction ñu jiite ko Sénégal mën na changé quoi mais jël ay direction di ko jox ay ay ay yoo xam ne am na 60 ans am na ay 80 ans dina jox ay direction te seen yi mën na Sénégal ko yomb na système bi bu jugee côté Sénégal day changé automatiquement même pas 200 cent Sénégal day changé normalement loolu moom lu war a mën a nekk la man moom Sénégal changé pour man nekk lu jafe ndaxte xam-xam bi mu ngi fi idée yaa ngi fi dañ leen war a may change jeunes yi jox leen ñu mën vraiment loolu moo mën a Sénégal mais pas mu de pas màggat fi nekk nii nii période de 60 ans ñun fi di jiite Sénégal di di di di yak Sénégal den den leen wara a jëlee teg wayé ne ñu doxal loolu dal man la gis mu mën a Sénégal mais pas système c'est une nekk nii. sa gis-gis daal il est temps je yi je yi jóg diriger. bah bien sûr loolu moo mën a changé Sénégal mais yow yaa ngi jógee da ngay le système kii bitim réew rek ay ay direction yo xam ay xalé yo xam moins de moins de 30 ans di jiite di doxal mais Sénégal c'est ni boo commencer man mi Euh, man ma amaguma am amaguma amaguma 30 ans mais su may wax si wàllu pële samay wóor ji dañ naan voilà yow waroo wax nangam nangam xale nga mais xale moo war a doxal àdduna yow boo demee ba am 60 ans lan ngay defati si àdduna xale nañ war a may sens xale am na am na mu ngi ànd ànd si boo nañ ko war a may sens bu mu mën a mën a doxal mais boo demee ba nekk mag yow lan ngay defati si àdduna mais lu tax Sénégal di dund loolu si wàllum politique daal koo si teg mu ne non duma si wax euh. wala sama wax bëriw si wala ñuy réserver comme exemple bi nga joxee léegi ci waajur yi lu tax loolu est que tamit du yenn yi ñu jàpp la tëj wala yenn yeeg yéen loolu la dafa dafa yàgg si yare yare bi ñu yaree si kër gi la hmm. yow instant bi da nga nekk xale nekk sa kër papa sa papa daf dara nga war a wax ñu ne yow waroo wax xale nga hmm. xale dafa war a wax kër gi kër gi système bu ñu yoree xale yi la xale yi dañ ko def loolu ba ba seen bopp ba dañuy màggaale ñoom bu ñu gisee dara waruñ ci wax mag rek moo war a wax mais xale boo ko yoree si kër da nga koy teel a def jox responsabilité bu gisee si kër gi lu jaadu mu wax ëllëg nag gisee si réew mi lu jaadu mu mën a wax mais xale xale xale wartu wax xale wartu wax xale kañ lay wax xale xale moom moom aduna xale moo war a doxal mais pas mag kese kese aduna ñaar ñoo koy doxal il faut ñu may change xale ñu man a doxal ko mais pas xale wartu politique wartu politique mhm. ñun ñoo war a politique war a changer réew mi mhm. loolu loolu loolu système boobu dañ ko war moo tax Sénégal li ñu war a changer dafa bëri mhm. xale yi dañoo war a may chance. voilà boobu yow ana ban mbër nga gis ni moo war a la moo war a wutu le président de la ah, république. ah ko kay picc yi picc yi sax xam picc yi moom la ñuy sabee sax. ah kan la ah bien sûr. Ah. mooy ko sell gi rek personnel Ousmane Sonko. <laughs> Ah, kooku moo fi andi programme boo xam ne ñun. man mii ne euh, avant avant 2018. ay wàllu politique introduction ay wàllu. mbër a yëfi kii yoolu caaxaan yoo rek laa intro mais 2018 bu ma déggul président Ousmane Sonko a sans Sénégal mu ngi nii quoi ndax programme bi bu andi kenn ko fi andi programme bi te xam nga nit da nga wax ne bala nga ko da nga xool si discours am ak parcours am ñun ñaaree xool nañ si Ousmane Sonko instant bi maire Ziguinchor nu mu koy doxalee mais benn maire doxal yoon noonu programme bu ñu bi andil bind livre indi programme boo xam ne moo mën a sens Afrique waxuma Sénégal mais Afrique rek programme bu mën nay sens Afrique kon il est temps ñu jéem a jàppal Ousmane Sonko mu nekk président sens Sénégal ndax Sénégal dafa war a changer. mais discours yi dañ koy tenir balaa kenn di yéeg foog ñu taggal ko ay maamam ne moo fi gën mais su yéegee rek ñu xalab ko. waaw bien sûr loolu day am Sénégal mais nag pas Ousmane Sonko Ousmane Sonko boo xoolee parcours am Ousmane lu ñu ko fal su su ko neexul eh, actuellement nii man na nekk million milliardaire man na koy doon mais nekkul ko ndaxte loxo bi dafa set et puis patriotisme dafa nekk si deretam parcours ak discours am boo ko xoolee da nga xam ne si si loolu nga mën a toppee doomu aadama ñun loolu nañu topp Ousmane Sonko Ousmane Sonko ñaari par ñaari yoon nañ ko parcours ak discours loolu nañ ko toppee quoi te xam naa ne loolu moom am nañ si moom yaakaar bu baax a baax a baax nag pour mu doxal ko ëllëg nag bu ñëwee def loolu def leneen lu du loolu rek ñu bàyyi ko si seetaan ñun duñu topp nit si si dangaa rafet wala dangaa nekk si ay yax bu rëy fañ bu rëy ñun la ñuy toppee nit Ousmane Sonko ëllëg bu ñëwee def lu dul loolu dañ koy bàyyi teg topp ko dem dem seeti keneen mhm. ñun Sénégal moo nekk suñu xol de mhm. keneen nekk suñu xol ku lu Sénégal kese mhm. ku doxal Sénégal ñu ànd yow mais ku doxalu Sénégal ñu teg la fee nag c'est ça le problème. ok jaajëf pour jeexal ban message ngay lancé askan bi. waa askan wi di wax ne ñu gën a góorgóorlu la waa gën a gën a gën a bëgg suñu réew ndax nit ki am lu too réewam yàlla bëgg na seen yoo xam ne ñu ngi génn Sénégal dem bitim réew di sàkku liggéey loolu rafet na ndax tukki moom euh, xam-xam war a war a alal rek ñaari mën koo si amee mais il e temps dafa jot ñu defar suñu réew toog suñu réew liggéey ndaxte Sénégal dañuy sonn si bitim réew si seen i essence seen boo gis man mi bu njëkk avant avant 2023 bi sama xel ay tukki saari la nekkoon mais bu ma disku bu ma déglu Ousmane Sonko ma xam ne man mi Sénégal mën naa fi toogee tekkee ndax ressource yëpp mu ngi Sénégal il est temps nag système bi rek nañ ko jéem a sensé Sénégal yi mën a toog fii nii mën a faju mën a jàng sensé système bi yëpp ndax Sénégal sonn yow seen yi instant Sénégal nit ñu lekk bu baax sax mënuñu ko am nañ problème mu faju problème mu njàng système système bi système bi baaxul njàng mi dara baaxu si loolu nag système bi nañ ko changé rek léegi nag ku ñu ko yaakaar mooy Ousmane Sonko rek ñoo changé ñu doxal nag loolu kese mooy système bi quoi di ñaax Sénégal ñu gën a focus nag 2024 ndaxte 2024 non c'est les Sénégal di changé mhm. loolu mooy démarrer Sénégal pour change beneen Sénégal un Sénégal nouveau 2024 lay am incha di leen remercier bu baax baax. mais ñu ngi lay jaajëfal. waaw di kontaan baax di leen ñaanal seen site bi yàlla jëmal ko kanam. bu dem ba nekk télévision boo xam ne bu mag a mag lay doon. waaw ngay ah employé yokk xam nga Sénégal moom instant bi mooy loolu dañu am problème employé. di ñaan télé bi yàlla na ko yàlla yokk ci barke yi sallallahu alayhi wa sallam. allahumma amiin kontaan ok merci ah jaajëf waay. ayca ami cher internaute tey lii lañ indi loon ah, xam naa ni dañ leen di dox di daje incha allah ci beneen numéro nee naa leen dee leen wéy di emee di commenter di partager di abonné wu bu baax a baax dee leen ñu wax lu leen neex ak li leen nakkari comme ça ñu jël lépp incha allah teg ko à la lettre dañuy jéem rek ay ndaw la ñu mënuñu dara yàlla rek mën maa ngi gërëm bu baax a baax di remercier sama caméra wu mën ah, Saliya from fee jaa ngeen jëf